yoon wi ngeen gis muy jóge Poroxaan di dem Kër Mbaba jàpp nañu ne mu ngi ci biir bassin arachidier yoon la boo xam ne daanaka tey jii génn na dëkk yu bare ci tumuranke ndax sooy xool ñi ciy dëkkee ñëpp dañ daan wiiri wiiri bu rëy ngir mën a dem fi nga xam ni moo di Nioro piste bu ñu yàgg euh, gént la mën nañ ne yàgg nañ ko bëgg a am te mosuñ ko am mën na ay atu at depuis Senghor ba tey piste bi ñu ngi koy wax su réalisé wu ren si yàlla ak piment donc dañ ciy sant yàlla parce que piste bi bi may wax côté santé dañ doon am problème parce que centre de santé bi Nioro la ne mais pour évacuation yi dañ doon def tour fi nga war a def quarante minutes trente minutes dañ doon def deux heures de temps surtout hivernage su jotee pour yóbbu ay malade donc am na si nga xam dañ doon accoucher ci yoon ñeneen ñi mën naa ne di décédé ci yoon parce que problème bu euh, pour ñu yegg à temps c'était un problème. tey jii liggéeyu yoon wi daanaka jeex na entreprise yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi ak di ko saytu ñoom ñëpp ñi ngi ci place bi. xool jeex na ba pare parce que def nañ appro yëpp ba mu jeex euh, dalo yi pare na cent pour cent rajo yi pare na cent pour cent bon dese nañu traitement bi daal moom moo ñu dese fi mu toll nii ak complément yi tuuti rek. piment ci Kaolack soo koy xayma. daanaka dina ëpp joomi milliards ci koppar yoo xam ne dugal nañ ko ci wàllu njàng mi koom gi waaye it fexe ba nit ñi mën a nekk ci jàmm ak salaam di dem di dellu si génn ci tumuranke saalu classe yi di ay jàngukaay ngeen gis ko nii ñu tabax ko ak terrain bii nga xam ne terrain multifonctionnel la maanaam ñu mën ci def sport yu bare bare yooyu yëpp dafa gën a yombal li nga xam ne moo di njàng mi ba joxe ay résultats scolaires yu am solo ay at yu weesu fii dañ doon nekk fii ba ay quatorze heures ay seize heures et demi presque cinq heures élève bu wàccee mën na dox ay huit kilomètres ay dix kilomètres pour retourner chez lui maintenant on parvient à descendre à quatorze heures et demi maanaam ñaari waxtu bu tegalee fanweeri minute élèves yëpp wàcc. terrain multifonctionnel bi nii nekk suñu ginnaaw euh, waa Pima ñoo ñu ko defaral euh, mu nekk infrastructure boo xam ne si nii bu am njëriñ ne bu ñëw ci heure am Euh, suñu élèves yi découvrir yeneen sport collège bu bees bi ñi ngi ko tabax ci Njaayeen post Puma moo ko fi defar di gën a yokk nag li nga xam ni moo di collège yi ci Kaolack ay koppar la yuñ ci dugal kilifa yi di ko rafetlu département bi dafa yaatu bëri nag ay zone yoo xam ne ah dafay soxla nit ñi mën di dem di dëkk di rejoindre pole yi nga xam ne mooy pôle économique yu mag yi yu mel ni Poroxaan yu mel ni Nioro Daaru Salaam Kër Ayib et donc fexe na ba créer situation buy permettre nit ñi fu mu mënti nekk rek ñu mën a rejoindre ces pôles la loolu dafay tax su fekkee ne ñoom am na yenn bëgg-bëgg yu ñu am te amut ci seen gox ñu mën a déplacer wu facilement dem wuti ko su fekkee ne tamit dañoo produire la ñu bay ñu mën kaa indi foofu daal di ko jaay sans difficulté bu ma jëlee exemple yoon bi nga xam ne ñu ngi koy defar muy piste Kër Maba Poroxaan piste bu am solo la quinze kilomètres boo xam ne dana tax nga mën a jóge Kër Maba jaar Poroxaan ak Siñooro ci diir bu gàtt te bu njëkk dañ daan wiiri ci diwaan wi Puma jot na fi dugal ay mbir yu am solo ci ay jumtukaay jàpp jëm ci dimbale askan wi waaye it fexe ba lépp loo xam ni moom la ñuy wax équité territoriale yemale dëkk dëkkaan yi ñu daal di koy amal programme bi dina liggéey it ci wàllu wér yaram ndax tabax na fi ay poste de santé yu bare joxe fi ay ambulance waaye it tàggat nit ñi rawatina it waa kër docteur